dinaa ci ñam tey. waaye sa robe bi dafa rafet yow. kaa ci pax bi kaa ci ni nga mel yow kaa ci kaamu bi suñu xool. waaye ni nga mel ni yow. yow yow yow noo soowee nii yow waaw sa couleur bu di ma dosé mais sa robe bu baax mais xanaa kii du def double XL. waaye yow noo soowee nii. waaye eh. yow noo soowee nii yow noo soowee nii yow. da nga soow. waaye yow soo. voilà eh, dama lay pini fii léegi taxawal fii nga lekk sa gâteau. dina eh, la mooy kanam gi ak mën a reewantu. <laughs> Eh. mooy caat. non non man tàngu naa leen. waaw d'accord bon appétit. bon appétit. <laughs> allez euh, Myrma qui nous a donc rejoint sur ce plateau alors enfin un album depuis lors ñuy dégg baat bu neex bi dégg talent bi euh, euh, xam nga euh, nga nga mën ni ngay def lool léegi ngay doog génne album. pourquoi. Wow. parce que en 2008 waaw euh, ñëpp xam nañ ne 2008 laa def sama première apparition. 2008 mhm. euh, nag ba ma génnee sama morceau Je t'aime bi. Mhm. dama defaat en arrière. Mhm. dem jàngiwaat musique. waaw euh, dama jëlaat beneen temps. pour xam am tuuti xam-xam ci musique. parce que dara soo koy def déjà. il faut nga xam ko. pour pour mën a def carrière. donc je me suis dit pourquoi pas parce que Je t'aime bi ma koy def. je m'attendais pas que Sénégal bi accueillir loolu. Je t'aime bi daf ma bett parce que j'étais pas prête. <laughs> donc euh, ma reculer waat. ma dem jàngi musique. def ay cours vocaliste def ay cours solfège. <laughs> def pas mal de tournées. <laughs> joobaat samay son defaat. pour def carrière en fait moo tax mu def waaw dugal xaw la xaw comme après résultat nga def album bu six titres six titres voilà yoo xamante ne benn bu ci nekk dafa ëmb histoire comme oui ah, bu nekk morceau bu nekk am na lu tax ma woy ko mhm. morceau bu nekk am na lu tax ma bind ko mhm. parce que man su may def inspiré ci benn morceau il faut ma am émotion mhm. wala ma am lu ma metti ma def ko donc moo tax six titres yi bu nekk rek am na histoire am waaw voilà exemple seen reprise booy Michael Jackson Michael Jackson hein? voilà ouais. reprise Michael Jackson la. Mhm. Euh, mu nekk morceau bu ma neexoon. Mhm. morceau bi toujours da doon résonner si samay nopp. toujours toujours da doon samay nopp ba may tëdd guddi sax di ko gént. morceau Michael bi après ma yeewu di ko wax sama grand frère bi naan ko morceau bi chaque fois dama koy day résonner samay nopp mun ma pourquoi munoo ko wayaat. Mhm. moo tax ma woy morceau Michael Jackson bi muy Ear Song. moom mu ngi si woyoon nature bi. bëgguma woon changer trop trop texte ma woy ko Sénégal. Mhm. ci laa bind la texte muy Sénégal. d'accord bu la neexee ci biir album bi yan euh, style lañ ci retrouver waaw am na mbalax. am na acoustique mhm. ñaari afro musique ñoo si nekk te mbalax yi bu nekk am na différence déjà mhm. parce que toll si dafa rythmique mhm. dafa dafa dafa rythmique trop bi si topp comme genre et pourtant boobu softu mbalax la euh, xarit tamit même chose da ngay sentir R&B tout dedans donc dafa am variation ci ci album bi ci ban type de musique déjà nga ci gën a retrouver wu parce que au départ bi nga dikkee ci je t'aime uh-huh. niñ la gisee woon mais am na ay clip yoo génne on sent vraiment qu'il y mbalax <laughs> da nga ciy ñor di yëkkati comme par waa xam nga Sénégal la ñu nekk te te mbalax moom mooy suñu mooy suñu musique. donc moo tax ñu bëgg ko safal ba mu saf sàpp pour mën a euh, mu mën a toucher mhm. public bi yëpp. parce que du ñëppay déglu mbalax du ñëppay déglu acoustique. Mhm. donc moo tax ma préféré def album bi mu nekk variation. mu am mbalax pur et dur. Mhm. am soft mbalax am euh, acoustique dedans. voilà mais moi par contre Pape Cheikh a juste xam nga d'habitude waykat yu bari boo leen gisee dañ lay naan. Euh, dañ ko donn ci seen ay mbokk yow kër ngéwél nga juddoo wala da nga jàng nii rek. waaw c'est vrai que du ma géwél te aw ma maamu géwél aussi waaw mais sama yaay bambara la moom ah. yàlla moo def mu am baat bu neex waaw moom sama yaay baat baatam dafa neex day zikkar waaw suñu waa kër yëpp ay zikr la ñuy def donc man maa nekk ci showbiz bi di def musique mais way bi moom ci sama yaay laa ko jëlee ah, moom dafa am don yàlla def mu neex baat voilà alors euh, yaay mu ngi toog ah, maa ngi seen yaay toog xam di seetaan di préparer ay affaire am je sais que paregul mais elle est en train de se préparer ah muy pare dama bëggoon euh, nga may ñu woy bu neex boo xam ni ah mhm. dañu koy may suñu xarit ci xëy tey ah euh, déjà lundi boo xëyee comme on dit bien <coughs> commencé lundi bi ñu bëri du ñu motiver mais heureusement yeewu leen mu ngi fi di leen gunge ah Kourani Diarra que l'on embrasse très fort Kourani ah mm. sama umpaañ la journaliste bu mag ñu ngi koy nuyu Michael Souma ah que nous ah, remercions ah un boo xamante ni mu ngi jógee France mu nekk ak moom mm-hmm. ah, Barkaba Euh, Barka la dernière fois euh, il me fait euh, man journaliste la mais je suis content de suivre cette émission ah surtout bu ngeen déconner il y a toujours aspect sérieux buy ñëwaat après ngeen mhm. déconner waat donc mhm. eux yu professionnel la et j'ai très aimé avis u Barka Barka ñu ngi koy gërëm bu baax merci de regarder et de suivre cette émission donc maa yey ni yeewu leen c'est la seule matinale qui réveille les Sénégalais ak fu ngeen mënti nekk ci àddina Mirma une belle chanson pour nous ñu enjoy ayca tout de suite. léegi nga bëgg. léegi laa ko bëgg. ayca waaw. <laughs> <laughs> jigi kon ayca ñu dem waajur. boy memberenang Yai embu jorom nyinti wera Ken amul jono yang ada sonti Terewa ngai fo di pase Dem jam Ciao. Maué, doomu ndeyu Pape Sall Jules Samba ku baax la. Birame Ndumbaan way yaa fonk sa yaay yaa yërëm sa yaay fekk ci doon jàmbaar. sama or sama jama taay bi Excited from Bunayay Yay sumuot sa magamas Bible, sunyo kiray Sister Fatina May mo na Sa tur, may populo sa yay May man Merci, c'est une